wax naan Fils de Balla dafay dafay dafay andi ay benke ñenke boobu loolu amul. Fils de Balla dafa dam jour boobu bi mu taxee tànk bi tàmbalee néew yi li gën a dee à 9h jooy na ba sonn école ba. bi mu yokkee poids ñu gis général Malika wàññi pois bu bari. non Fils de yokkul sax poids hivernal bu baax la def rek dafa hivernalu ndax ñun ñëpp ñoo doon àndandoo di entraîner man li ma leen di wax rek. tollul woon gis nga combat bi soo xoolee jeudi sax nii mu mel combat bi ñaar samedi ak dimanche bi mu noppalu moo tax moo indiwaat poids bi noonu. Assane combat bi daa am loo su doon deux mois sama nag du ma bëre Assane ne ko non ñu tàmbalee jaw mu woo ma téléphone moom fils de Balla ne ma kër sa mu ne naa mu ne ma Assane Ndiaye daf maa woo léegi ma ne ko lu ma mu ne ma non combat bi nangam ak nangam la ma ne ko Aziz mu ne ma naa ma woo ko ñetti ne ko bëreel. Eh, wallahi wa taala ak lu mënti xew di daan général fii laa toogee di koox. dañuy bind ko sax. ah waaw mën nañ dugal seen recours mais man gisuma lu fa jël ndax général moom ni mu yàggee suuf rek soo xoolee def na fukki yoonak juróom tey ji arbitre yi dèjà rek dañ ñëwoon nit su la waree ndomba dóor la cinq coups dañoo war a àtte combat bi. général am na benn instant bu mu. Mm-hmm. kuccalee Fils de la mais boobu yëpp maa ngi ragal arbitre bi sifflé di leen woowaat di leen avertir di leen woowaat si bëre mais Fils de Balla da ko daan ndax général ñu bëri ñu ngi naan 4 appuis mais teg na fes Franc ah, Franc Franc xam naa dina la seetaan te Fils de Balla tamit xam naa ne loo ko digal loolu lay def. waaw man si boppam wax naa ko nee naa ko Franc foo taxawte bu mu am jàmm fu mu nekkati nga gis ko bu mu am jàmm. dañ koy jàgg-jàgg ndax Bombardier mënu dèjà rek dèjà biñ ko fësatee. bi ko waaj a pàddee la boobu xam nga loolu la war a def reculer ñëwaat. dellu ginnaaw dellu ginnaaw ñëwaat su dee benn pas trois pas tegaat ñëwaat pour côté bi mën a dellu si waat mu baax mais dafa forcer dem waaj a dolliwaat pàdd bi. Bombardier mën naa ne bi ñu koy dóor korosé sax mën naa ne dara nekk ndax tànk yi taxawatul ndax padd bi moo métti ñooñu soo xoolee li ñuy entraîné suñ la paddee danga koy yëg te tànk mooy nit sidit bi day yéeg ba ci bopp. du question de palmarès moo ko fa boo yóbbu de gabari moo ko fa yóbbu. gabari bombardier dañuy waxante dëgg rek gabari bi lañ xool dem boole ko koog mais su fekkoon palmarès bombardier li mu waroon xeex sa MMA xeexagu ko bay yegg foofu dem bër dem ñu përët ñu boole la ak trois combats la def xaw ma kaat ñu boole kaak l'homme le plus fort du monde xam nga bi ñu la waxee loolu rek war nga mën a xoolaat sa bopp quoi l'homme le plus fort du monde pour biceps bi mu yor rek toll na ni bombardier cent quarante kilos la nga koy biceps see benn loxo mais ki si xaw a am as tuut Ada Fass ma mosuma daje moom mosuma koo gis mais ki ci xaw a am as tuut ma fekkee ay entraînement mag yooyu muy Tapha Mbeur ndax fekk naa ko ci koo xam ne ki koy entraîné xaw ma kan de mais du entraîné mbër pare ñu naan parewul comme musa téye ba pare doole di nga ko am te di nga am fraîcheur physique bu baax muy gii olympique club. mais ñu ngi dinañ bëre combat bi ndax Ada Fass bërekat la. bërekat la mbër Mbeur bërekat la mais soo xoolee Ada Fass moo xaw a ëpp bëre. tey Lamine lañ fi lañ fi dalaloon waxtaan ak moom ci émission bi nga xamante ni mooy Jamarloo.